bu gëm ne day wax chaque jour laa ilaha illallah gëm ne dafay wéetal yàlla mi ngi dund tawxid ba noppi di ñaan keneen ku dul yàlla boo ko ko teree mu ne la yow da taral wala danga ma contre wala da ngaa contre ki may ñaan allahul mustaan léegi fan la problème bi jóge ngay gisaat ci ñoom koo xam ne gisul problème ci nekk ab jullit bu gëm yàlla doyloo yàlla wéetal ko ba noppi di jëfandikoo njabar benn problème nekku ci njabar njabar xam-xamu jinne la xam-xamu iblis la kenn munu ko layal rafetal ko ba mu nek xam-xam bu jóge ci yàlla xat yàlla subhanahu wa taala wax ne dañuy jàng ci ñom lo xamanteni daf leen di lor te amalu leen njariñ lolu yenn ci borom leen limi li muy tekki mooy njabar ben njariñ newu ci ndax lo xamanteni daf leen di lor te amul njariñ bu ko yàlla waxe limi muy tekki moy ben njariñ newul ci njabar léegi tay jullit yi tey lan lañ jàpp jàpp nañ ne da ngay nek ab julit buy wax la ilaha illallah fo tollu te boo wëlbatikoo di dem ci ay buxaabakat ay maamankat ay gisaanekat yoo xam ni seen xam-xam yépp ci jinne yi lañ koy jëlee te jinne yi lu dul lor doomu aadama yi sori leen seen borom tàbbal leen ci kéefér nekkul seen yitte guddeeg bëccëg ci loolu la ñuy dox lu dul ñu yàlla baaxal ci ñoom ñu tuub te ña tuub duñ jëfandikoo njabar ci ñoom kon da ngay gis léegi buxaabakat boo xam ni day toog di jàng ay aaya alxuraan kay xadisi rasulillah ngir layelee ko njabar gi muy def ak gisaane gi muy def te xam gisaane lan mooy cosaanam lu dul jinne yi daw gi ñu daan dem ci asamaan di fa sàcc ay wax yoo xam ne bu ñu ñëwee moom la ñuy jox buxaaba yi ñoo koy wax ci nit ñi loolu mooy cosaanu buxaaba ak gisaane léegi suñu télé yi bis bu nekk télé yi rajo yi ay buxaabakat ñoo fay nekk jullit ñi ñoo leen di woo ay téléphone ak di yittewoo seeni mbir léegi ku ci commencé buxaaba sax ñaari fan ñett nga gis ko mu yor alal ju dul jeex kan moo ko ko jox ñuy woote woo ay jullit loolu yépp day delluwaat ci pas-pas yu yàqu yi laa ilaha illallah nit ñi dañ koy wax xamuñu ko comprendre uñu ko jëfewuñu ko loolu mooy problème bi ngay gisaat ba léegi tamit ci ñoom koo xam ne ma ngay wax laa ilaha illallah te saa buy waat du waat ci yàlla ci keneen ku dul yàlla lay waat waat seddaloo la li ngay seedeloo yàlla moo ko mën a seede ndax yàlla rek moo ko xam te yàlla nga gëm-gëm gu toll ne boo ko waatee ci mbir xam nañ ne ragal nga ko ragal gu toll ne doo wax ne maa ngi wat ci yàlla ci nangam ba noppi di def lu la neex ndax xam nga ni yàlla mi ngi xam li ngay def ak li ngay nëbb ak lépp yàlla xam na ko saytu boobu ak pek googu yàlla rek moo la ko mën a peek peek ko say mbir ba li ngay wat yàlla subhanahu wa taala ànd ak yow ba ba mu jeex keneen amul mën-mën boobu la ngay wat fekkeewu ko xamu ca dara ay mbiri boppam sax lañ cay def ca gannaawam xamu ko bay mën a seede li ngay wat ci moom moo tax yonentu bi alayhi salaam waxoon ne man kaana minkum xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut kuy wàcc yéen na wàcc yàlla wala mu noppi loolu omar ibn alxataab la ko waxoon omar ibn alxataab nee na ba ma waxee loolu ci laa noppee wàcc keneen ku dul yàlla moo xam maay waxal sam bopp wala may nettali sax ay waxi jàmbur du ma wàcc keneen ku dul yàlla kon ci yàlla la ñuy waat waaye da nga gis jullit boo xam ne du waat ci lu ko amal njariñ lu dul ne doomu aadama wala mbindeef mu mel ne moom lay tudd di wàcc moom bàyyi fi yàlla mi nga xam ne moom moo sàkk mbindeef yi di leen wërsëgal mel ne comme xeeb na yàlla ci di ko waat ñenn ñi sax pour ñu gëm la dëgg doo leen waatal ci yàlla boo leen waatalee ci yàlla duñ la gëm da leen di waatal ci leneen wala keneen ñu xam ne yow mi li ngay wax ñor na la wala am na la jox na la yitt wala nga mën leen ci convaincre mais kan mooy yàlla subhanallah la buy joxe buñ dangay gis kenn ci ñoom kon buy waat du waat ci ci ci yàlla subhanahu wa taala ci mbindeef lay waat buy joxe ci buy joxe du joxe ci yàlla yàlla du ko tax di joxe mbindeef moo koy tax di joxe boo ko laajee ci yàlla du la jox ci ngir yàlla rek du tax mu jox la ndax jàppul ne yàlla boole na leen boole bu toll ne wala ñor na ko ñor ju toll ne mu jox la ndax yàlla tax keneen wala leneen mooy tax mu jox la mais du yàlla du joxe ci yàlla buy xañ du xañ ci yàlla buy mer du mer ci yàlla buy bég du bég ci yàlla la koy bégloo leneen la lu dul yàlla motax lu ne nit mën na ko fee def yàlla ci ay atem wala mu wax ko ko te nit ñi duñu mer waye buñu ñu ñeneen ñi ku ne juk hasbunallahu ni'mal wa wakil façon doye dal gune dañ ko fi doye dal diine guddeeg bëccëg diko doye dal suñu suñu suñu borom biñu sujootal diko jaamu naan subhana rabbiyal ala diko doye dal suñu yonent bi nga xamanteni bi fuñu julle fuñu jullee fu ci yàlla julli ci mom nga xamni ni njub gi ñu yàlla defal ci loxom la ko yàlla jaarale bis bu ne ay nit di jël ay yu ñàkk solo di ko teg ci seen i atte ak ci seen mbir ci seen diine kenn du ci mer waaye am na fi yoo xamante ni waxuma sax di ko tudd waaye gaaral rek boo ko ko defee yow soo moytul mim réew doo fi fanaan wala say wax dañ koy wax dañ koy nettali façon menace bu ne di ko gis lu ne di ko dégg waa ana yàlla lépp yàlla la lépp ci moom la jóge te lépp ci moom lay dellu moo tax ñu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te bu fi lépp yàlla rek moo fi des moo tax yowmal qiyaam yàlla dafay bàkku ci kanamu jaam ñi ne anal malik man maay buur ana ñi doon buur buur la ci àdduna kenn du wax kenn du sëqat wallahi yowmal qiyaam kenn du sëqat lu dul ku yàlla wax ne waxal kenn du wax kenn du sëqat wallahi yowmal qiyaam kenn du sëqat lu dul ku yàlla wax ne waxal te dëgg ngay wax kon cër ci yàlla lay jóge ci yàlla lay dellu ñun ñëpp ay mbindeef lañ ci kanamu yàlla dañuy góor góorgóorlu fii ci àdduna bi di def lu ñu amee yërmande yàlla ju ñu dugal aljanna ay jaam yooyu doy di lañ ci suñu kanamu borom mën luñ suñu bopp dara suñu lépp ci yàlla lay jóge kon nit ci ñun kenn ci ñun mënu fee rëy wala mu baax fi bañ jël la di la méngaleeg yàlla wala ñuy jël lenn ci àq yàlla yi di ko jëmale ci yow amul benn mbindeef ba mën-mën wala sëñ sëñ boobu yonent yi ko seeni seeni xeet defaloon gis nga ŋàññ yi leen yàlla di ŋàññ ci alquran kon naka nag ñu koy defal wala ñu koy foog ci koo xam ni du sax ab yonent ay yonent yi gën a baax ci yonent yi di ulul azm min ar rusul isa ibn maryam yàlla moo ko sàkk ci kàddoom muy kalimatu kun amul sax bàyyi ndey la am ñëwam ci àdduna nekk kéemtaan bu rëy façon xar baax bu ne moo ko daan def yàlla defal ko ko waaye ba nit ñi ëppalee ci moom ba di ko yàllal lan la yàlla wax ci alquran yawmal qiyaama sax yàlla da koy taxawal ci kanamu nit ñi ne ko ndax yaa waxoon nit ñi ñu def la yàlla mu weddi loolu ci kanamu yàlla kon limi tekki moy yàlla rek moy deug yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala taxawal deugeral suñu tànk ci tawhidullah subhanahu wa taala